الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي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 الحمد لله الذي أغناني وأعزني ngir jotaayu lekk bu nekk doon waxtu bànneex lobbu Mame bu Bousso ngi leen di gunge lu ëpp ñaar fukki at ci seeni biir kër féete ak kilomètre ci yoonu Tëngéej fii ci Ndakaaru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 te it ngeen yelloo li gën lobbu maam jaaru du jóg si di indi lu bees di xoolit fu gën a sori. alhamdulillahi alladi agnaani wa aazz alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wa imaami al mursalin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax gannaaw bi ñu noppee ci sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci suñu yenent di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu nanguñ suñu koor koor bi coono ji bari na waaye e, coono yi bànneex kese la moo tax tey ñi ngi ànd ak yéen ba tey ci suñu émission bi ñuy wax Chumuliyatul Islam ci Ali Imran TV nga xam ne émission yi wees yëpp ñi ngi wax ci wàllu jàng alquran ci wàllu naafila nga xam ne yooyu yëpp boo si xool rek ak koor weeru koor ci boppam boobu ñëwaguñ ci te dinañ ci ñëw maanaam njëriñ bi nekk ci koor ci boppam naka la ko jullit ki war a taxawoo yooyu yëpp dinañ ci ñëw incha allah ci ay émission waaye balaa ñuy ñëw ci euh, ci beneen wàll mooy weeru koor as-siyaam muy weer weer bi nga xam ne ci lañuy woor nga xam ne koor dafa jafe yombul waaye tamit ci yeneen jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñuy def moo xam jàng alquran temps bi nga ciy def coono beeg surtout ñi nga xam ne dañ ciy nab na bi seen jàng demeewul noonu ak tamit génn sa kër dem ci jàkkee di naafila taxaw boobu nu mu jafee ak nu mu baree coono nga xam ne bëccët bi yëpp yaa ngi ko woor léegi nag kooku lan lañ lay wax dafa am pour encourager ko pour gën koo yokk li nga xam ne moom mooy volonté ak motivation moo tax ñuy indi benn wax boo xam ne benn xakim benn sage moo ko wax dañ ne su ila xakiman ñii ñu ne imaamul jawzi la dañ koo laaj benn nit ku am sa sagesse waaw koo xam dafa xereñ lool yàlla may ko xikma waaw ku mel ni al ustaad al jalil suñu pap suñu xarit suñu sëriñ al ustaad Alioune Sall nga xam ne tey buy wax si diine wala soo ko laajoon benn masala wala benn mbir suy wax ak yow bu dee mbir moo xam ne dafa diis lool dina la ko yen nga yenu ko daw ak moom ba tiwaawan jimbi si te doo ko yëg bu dee lu ñu war a pratiquer si diin di ko pratiquer te doo ci jëlee benn coono bu dee loo xam ne luy métti ci xol la dina mujjee doon bànneex loolu yàlla may na ko mooy oustaz Alioune Sall yàlla na ko yàlla euh, fay feyal ñu ko yiw àddina ak àllaaxira waaye sàmmal ñu ko yàggal ko ci kanamu njaboot ji yépp xakim euh, boobu ñu ne imaam al jawzi yi la ñii ne no imaamu tontowi la mais ci samay gëstu li ci gën a wér mooy imaamu Tantawi moom la ngi laaj ko ñu ne ko yow li nga jàng yëpp ci ay téere lan moo la gën a impressionné lan moo la gën a frappé lan moo la gën a frappé lan moo la gën a frappé mu ne li ma gën a frappé mooy lii benn boroom xam-xam wax mooy inna mashaqqata taa tamdi wa yabqa thawaabuha wa inna laddata almaasi tamdi wa yabqa iqaabuha allahu akbar mu ne inna mashaqata attaa mu ne coono yi jaamu yàlla coono yi ngay daj ci jaamu yàlla yi ñu doon lim nii yi ñu doon cité mu ne tamdi dafay jàll dafay jeex waaye nag jeex na dem na de wa yabqa thawaabuha waaye yiw bi nga xam ne moom nga ci nga ci doon yaakaar dafay des dafay des bu dee nit lu baax nga doon def ci àddina nettali dafay des ba ilaa yombi dindu du mu sa jël waaw fu ñu tuddee suñu mag ñu baax ñi magul islaam yi Cheikh Ahmadou bàmba ñëpp kontaan suñu maam El Hadj Malick ñëpp kontaan waaw ñooñu ba ñu jàllee jóge fii si ëtt l'islam bi Sénégal yàggul matul ñaari téeméeri at dama ko arrondir noonu waaye ku leen tudd rek ñëpp kontaan parce que seen jaar-jaar dafa baax moo tax pourtant nekkatuñ fi kon loolu li ko waral mooy jaar-jaar bu baax kon moo tax ñoom seeni mbir jàll na waaye gis nga seen nettali bu rafet mi ngi fi ba léegi kon ci wàllu jëf ju baax tamit noonu la ki ko doon jëf jëf na ko par exemple démb nga taxawoon julli 20 euh, rakka yoo xam ne da koy julli bu si nekk nga jàng si benn hisib par exemple loolu coono la de yombul de waaye bi mu weesoo yaa ngi tey coono ba jeex na noppalu nga fàtte nga ko waaye tiyaabu ji fii lay des du fi mus a jóge ba faw loolu la doon nettali mu ne inna laddata inna ma inna inna mashaqata taa coono yi jaamu yàlla tam di dafay jeex dafay jàll waaw waaye wa yabqa thawaabuha waaye yiwam xéewalam ak ay bànneexam dafay des mu ne nag wa inna laddata al waaye bànneexu cafka neex-neex bi nekk ci mooy yàlla mu ne tam di dafay jeex moom it tamit benn temps bu gàtt la moment bi ko nit ki di def rek ki lay yëg bànneex boobu waaye bu rombee rek wa yabqa iqaabuha ay penam ak naqaram ak susem dafay des waaw nit ki la mu def démb ci yu ñaaw yu bon yu ñaaw yu bon dañ koy nettali saa su ne waaye itam moom it saa yu si xelam demee rek dina am lu ko naqari ci xolam dina am lu mu regretté kon moo tax xikma boobu xikma bu yéeme la mu tax kàddu bi si njëkk moom lañuy jël si moom lañuy def waxtaan tey mooy naafilal yombul waaw yombul parce que li mu laaj ci effort dafa bari surtout jamono li muy doxee tey yi nga xam ne nit ñi dañuy daw daw daw daw daw daw guddi ak bëccëg waaw daw boo xam ne tey bu fekkonte ne tey yow da nga am liggéey boo xam ne yaa ngi déparé bërëb ngay jóge coloban wala Médina wala downtown maanaam euh, centre ville wala ngay jóge ci banlieue ba caaro Thiaroye wala Pikine wala waaye pour ñëw si ville pour liggéey si nga waroon def benn 30 minutes benn quinze minutes ci yoon bi coûté la trois heures de temps boo moytul wala deux heures de temps ndax embouteillage coono yooyu ngay daj ak coono liggéey bi ak coono ñàkk dépense parce que ñun suñuy dépense matul waaw li tax moo wax loolu mooy tey ku buggoon dund dund bu normal nga ndékki ndékki bu normal añ añ bu normal reer reer bu normal nga xam li mu war a àndal yépp daf daf ciy ànd waaw nga xam ne tey boo añee wala nga reer ba pare nga naan yi nga war a naan jus naturel yeeg waaw ci koor lañ nekk nag xam naa gars yi moom nañ ne moom <laughs> imaam moom mi ngi bëgg a yàq suñu koor ak fruits yi nga xam ne ci war a ànd parce que yooyu alquran daf koo wax waaw daf koo wax wa fawakiha mimma yashtahuun waaw nga kulu min thamarihi ida athmara wa yan'i li yakulu min thamari wa ma amilatuhu aydihim afala yashkurun kon yàlla moo ñu ko defal pour ñu léegi loolu boo ko jëloon dajale ko tey nga tey nga bëgg añ añ bu normal lekki bu normal lam lay coûter si dépense doo ko mën mënoo ko loolu boo jëlee sénégalais yi quatre-vingt-dix-neuf pour cent sax mun naa ne mënuñu ko kon loolu coono yooyu ngay dajale coono yi embouteillage coono yi liggéey coono yi ñàkk am dépense bu mat waaw ci bëccët bi nga ñibbi sa kër nga euh, dogu ba pare yenn saa sa ndogu ci bi ci si mbedd bi la lay fekk ci yoon bi waaw moo tax ñi ngi ñaax di remercier di ñaanal bu baax ñi nga xam ne ñoom dañuy organiser ay ndogu yoo xam ne dañ koy joxe ci mbedd mi loolu lu baax la yal leen ci yàlla fay gën leen dëgëral ndogu fekk la ci yoon bi nga àgg sa kër njaboot ji tamit ñu am ci yow wàll nga àgg préparé war noppalu walla nekk ci leneen ñu ne la génnal ñëwal ci jàkka ji nga ñëw naafila loolu yombul waaw yombul kon coono la coono boobu de moom la xakim bi wax waaw xakim bi moom la wax ni mu ne coono boobu mu ne dafay jeex ci moment boobu nag nga war a gën a takk sa ndigg ak nga sonn nga bàyyi lépp nga daal di dem ci jàkk ci nga la jaamu sa borom parce que weeru koor dafa gaaw dund ji dafa gàtt dund ji dafa gaaw at yi day dañuy romb comme c'est pas possible kon profitool parce que coono bii dafay jeex mbokk yi ku génn àddina ku ne rek imma rawda min riyaadil janna waaw aw xufra min xufari naar ñaara am ki nangoo sonn fii nii ëllëg bu tëddee ci ci ci ci ci ci bàmmeelam mu noppalu wala mu bañ a sonn fii nekk ci bànneex rek lu ko neex rek waaw mu génn àddina bàmmeel nekk ci moom kàmb ci kàmb safara yàlla nañ ci yàlla musal kon jaamul yàlla fàttel noppalu moo tax al oustaz moo doon tudd léegi Alioune Sall saa yu ko sëñ Mbàkke Sylla xafizahullah euh, sëriñ Mbàkke yal na ko yàlla sàmm moom it yokk ay fanam wéral ay cëram ku am taxawaay ci lislaam saa yu laajee oustaz Alioune Sall al ustaadul jalil hakim xafisahum allah ne ko waaw noo leen def mu ne ko fii kabadin rek ci coono rek coono waaw noppalu amul fii kabadin rek dem na ba auditeurs yeeg ñi nga xam ne ñoom ñooy topp seen bi ñu tàmm ko balaa ñoo ko wax ñoom ñu àggali ko <laughs> kon fii kabadin kon coono moo tax yàlla binduñu ci waxin fii àddina këru coono la waaw àddina këru coono la donc bàmmeel salle d'attente la salle boo xam mën nga ci profité nga noppalu ci kon boo jaamoo yàlla nga nangoo génn ci moment boobu ci condition yooyu dem si jàkk ji julli ji coono boobu ngay daj da ngay pare mu jàll la nga fàtte coonom léegi nag noppalu dëgg dëgg dëgg nag moom waaw ci waxin yaa ngi koy amee ci bàmmeel parce que foofu yaa ngi salle d'attente di xaar yowmal qiyaam pour dem aljanna sa këru aljanna imaam ahmad dañ ko laaj ñu ne ko kañ la jaam bi di daj wala di tàmmale noppalu ci dëgg-dëgg wala kañ lay noppalu kañ lay am noflaay mu ne indama yadaw aw wala qadamahu fil janna bu demee ba teg première tànkam man a paawam ci biir aljanna ci lay tàmmalee noppalu allahu akbar kon fiiru këru noppalu dañuy profité bu baax a baax a baax kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci suñu émission simulatu islam la globalité de l'islam di ñaan borom subhanahu wa taala mu nangul ñu suñuy koor wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الله الذي أغناني وأعزني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

الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان